yee gars yi wacc do wacc good it's your new boy Lord Wes gars yi salaamaaleykum salaamaaleykum dal jàmm si ma chaîne YouTube comme ni ma koy faral di waxee chaque fois gars yi te dañuy ñëw si ah, benn album bu bees boo xam ne génn na le 25 mars 2019 kan moo ko génnee Papa Rëy léegi léegi dai ok gars yi comme ni la leen ko waxee Papa Rey na feneen fu bees Papa Rey ku ko xamul na defoon naa benn vidéo réaction moom ak Dip bu tuddoon wuyu ma wuyu ma maa leen doon wax ni c'est un bon chanteur booy boo xam ni voix bi dafa neex booy boo xam ne je peux dire que continue bien moom mën na nekk ba romb li nga xam ni ba nekk Chris Brown Sénégal quoi parce que boo xoolee Sénégal jamono jii nii gis nañ ni y a beaucoup de personnes yoo xam ne dañu concentré trop trop trop ci chants yi même rappeurs yi sax euh, mooy wuyu ma bi newoon naa leen carrément booy dafa am talent do ouf ah depuis jamono jooju nag laa gëjoon dégg à part yenn son yoo xam ne gis naa ko nii mais ba léegi gisaguma koon encore ci scène musicale bi en tout cas man ah, ba ah, euh, bi moom wax dëgg fa yàlla moom dépp ma ko wax si wuyu ma ba maa ngi si position boobu noonu il est talentueux te boobi voix bi dafa neex trop trop trop trop loolu moom fallait que ma préciser ko kon fekkee nit ki mën nga def tout ba am album bi wala mën nga dem ba déglu album bi dafa tout nga déglu ko parce que y a beaucoup de musicalité yoo xam ne da moo di album bi ok gars yi balaa ñuy commencer dama leen di présenté ki nga xam ni moom laa doon mooy Papa fait partie d'une famille boo xam ni ñëpp ay musiciens lañu son père est musicien son frère mooy H the Best booy bi nga xam ne yéen a ngi koy gis si li nga xam ni moom mooy a aussi son frère business commercial bi ah, foofu la concentré carrément carrément mais il joue aussi bien les instruments mooy ñoom guitare xam nga ñoom saxophone ah, moom ay na si trop quoi benn instant moom si famille boobu la bokk loolu moo lay wan ni deret du réer xam nga gars yi temps yi West Show ak MBT gars yi dañuy critiquer quoi ñoom xam nañ loolu moo tax la première chose bi nga xam moom lañ def dañuy jox vidéo yi tout en sachant que ni ñun mën nañ si critiquer lu négatif mën nañ si critiquer loo xam ne lu positif que loolu mooy artiste quoi man je crois pour xool lan a wax si li nga xam ne moom moo di vidéo yi euh, wala li nga xam moom mooy son yi wala album yi xam génne nañ ko et ça m'a fait vraiment vraiment plaisir moo tax bi ma dégloo son yi aussi tamit automatiquement j'ai pris la peine man defal ko vidéo bi nii parce que tamit wax dëgg fa yàlla album bi mérité na bi mérité na loolu moom wes nañ dugg si li nga xam ni moom moo di euh, album bi album bi comme ni ma nga waxee douze titres la y' a beaucoup de feat ah, def na feat ak ki nga xam moo di H The Best def na feat ak ki nga xam ni moo di Edmo Flow def na feat aussi ak ki nga xam ni mu ngi nekk si Safari après ndànk naa di ngeen gis vidéo yi te dinaa leen jox tamit si link en description yi mais maanaam si suuf dinaa leen wax foo leen mën a dem pour mën a déglu album bi wala foo leen mën a dem pour mën ko télécharger yaa ma gën a nëw moom nag euh, c'est

featuring avec Dip Doundou Guiss troisième son mu ngi tudd Love ak Stress ñoom ñetti son yi la génnee ah musul mixtape musul génnee EP musul génnee pré album musul génnee dara dafa ñëw attaqué directement si li nga xam ni moo di album bi am na fit wala amul fit c' est de le découvrir c' est de le dire dem leen ngeen déglu son bi ngeen wax ma ndax son bi dal na wala dalul son yi def na ko un an enregistré na ko un an maanaam si studio bi nga xam ne foofu kon ça veut dire que ni ñaari côté rek la dem quoi ñaari côté pour jéem a xam nga changer un peu de rythme dugal yenn musicalité yi te musicalité wax dëgg fa yàlla dafa tóob vraiment vraiment la seule chose nag bi nga xam ne moom laa remarqué si mooy yàpp trop de love story euh, au départ la maa ngi doon jéem a ne ma love story la moo tax mais bi ma dégloo son yi ndànk-ndànk j'ai découvert que ni love story bu si nekk dafa am thème et c'était pas ni ki jël benn thème ah adapté ko ak li xam ne moo di titre bi pour mën a génnee ay ay thèmes yu bëri si nga xam ne moo di love story bi follow me xam nga ni follow mii bëri na follow mii mu ngi ci noon yi noonu yi dañ lay suivre même bu fekkee bëgguñ dañ lay suivre pour yaa xam te nga daanu yàlla fii jëkkër ak jabar ñi ñu nobante dañuy dañuy toppante mooy follow me loolu lay signifier yaa a aussi tamit fans yi nga xam ne dañ lay suivre tamit ñooñ ñooñu lay follow kon ça veut dire que follow mi en général quoi képp ko xam ne mu ngi si entourage mu ngi ko bëgg mu koy follow quoi moom nag vraiment maintenant artiste compositeur la chanteur ah artiste compositeur ak chanteur moom mooy ki nga xam ne moo di Papa Rey nañ dugg si li nga xam ne moo di douze titres yi nga xam ni def na ko première son bi nga xam ne def na ko mu ngi tudd Sow Alone Sow Alone nag ki nga xam ne moom moo ko produire mu ngi tudd Yakin Cheikh soo ménage bi tudd So Alone mu ngi ko def style blues jazz ak rythmique américain yi ko bëgg quoi The Weeknd da ngay def beaucoup de chanteurs américains dañ koy def ñëpp jaar nañ ci kon il faut ngeen dem déglu son boobu noonu vraiment vraiment dope deuxième son bi nag mu ngi mu ngi ko def ka at kan mu ngi ko def ak H the best ah Tomorrow tam son bu dal la son bu ma neex la dem lu ngeen déglu ko. son boobu nag mu ngi nekk genre pop. pop la carrément boo xam ne dañ si interdire ki nga xam ne moo di H de Best mu ñëw foofu rap troisième son bi mu ngi tudd yaay booy son boo xam ne daf ko dédicacé ki nga xam ni moo di yaayam son troisième son bi style R&B la ñëwee foofu noonu ak son bi la dédicacé yaayam son bu dóob boobu tam dem la ngeen déglu ko beneen featuring bi nga xam ne premier featuring bi nga xam def na ko mu ngi ko def ki nga xam ne moo di Edmo Flow son baa ngi tudd Stay With Me xam nga son bu dal son bu neex son bu posé. son bi nag style afrobeat la mais boo xam dafa posé yéen a ma gën a nangu kon ça veut dire que ni ak ñaari voix yoo xam ne bokk nañ si ñi nga xam ñoom ñooy gën a cartonné biir kon ça veut dire que son boobu c' est à écouter. beneen son bi nga xam ne nag moom si gën a neex mu ngi tudd Poka Poka son boo xam ne son dance la son fun la son discothèque la ma ne pourquoi pas tamit jogle leen son boobu noonu. après yeneen yeneen son yi nag ku ko bëgg a découvrir na dem carrément déglu yeneen son yëpp comme ça nga mën a am tuuti si li nga xam ni moo di album bu bees bi nga xam ne Papa Lay génne na ko en tout cas man moom wax dëgg fa yàlla je valide dama koy noté maa ngi koy noté 8 virgule cinq ah sur la moo tax ma noté ko 8 virgule 5 sur 10 mooy maanaam yegg 10 sur 10 moom xam naa doo am benn album artiste boo xam ni ah a bu fekkee da indi yeneen musicalité y a reggae y a tout ah, mais y avait pas beaucoup de rap te vu que nekk si monde hip hop ah je me je voulais bien nga dugg nga xam ni moo di rap bi quoi carrément carrément mais avant que j'ai vu que ne bëgg li nga xam ni moo di R&B bi wane en tout cas loolu moo tax ma

commenter leen like leen abonné leen ah, suivre leen Rap Galsen yëkkati leen Rap Galsen parce que en certain moment foofu lañ toll léegi nag moom képp koo xam ne yónnee nga sa album je vais prendre mon temps xam nga toog muy mixtape muy album je prendre mon xam nga wax si yow génnee say bagage génnee say valeur ak anecdote yi nga xam ne génne nga ko ah ak direction vidéo yi bu fekkee génne nga clip pour ma mën a accompagner li nga xam ni moo di album bi gars yi vidéo bi na Lor Wes la woon ak yéen Uno vero e davvero normale che piace a pochi Pochi, pochi Partiti da zero la band, mo sulla bocca di tutti Quanti occhi Sta merda già digerita perché non senti rutti Lo so, l'invidia rende ciechi ma ti dirò occhio dove tocchi